salaamaaleykum amis téléspectateurs Equivox TV dal leen ak jàmm ñu ngi fii ci diwaanu marché Colobane plus précisément ci rond bi waaye bu ñu taaru jigéen ñu di sëy waaye bu ñu taaru góor man dama bëgg góor goo xamante ni dafa am jom fas jom bëgg liggéey tey ma war a tàllal sama micro ak ñoom ñi nga xamante ñoo nekk ci marché bi pour ñu waxtaan li nga xamante ni moom la ñuy dund ci biir marché bi nes tuut sama caméraman moo duxule daan may topp moom la waaw corona nit ñi xiif nañu mar nañu génn nañ ci mbedd mi fu ñu toll rek Macky Sall du leneen nag waaw coono dëkk bi daal mag Sall moo ñu ko teg tëj na luuma dëkk bi tëj na lépp dara doxu ci dëkk bi moom daal moo ñu sonal leneen amu ci nag leneen lu ci nekk daal moo ñu sonal lu xew ci dëkk bi moom la jeex na. marché bi wax dëgg yàlla amaguñ ci benn jafe-jafe ñu ngi xëy di wàcc waaw xanaa instant bi moom dëkk bi nu mu demee mooy doxul euh, période climat bi nu mu demee moo tax instant bi doxul quoi mais. xëy na ci kanam tuuti bu tàngaay bi gën a dugg mhm. dinañ dinañ dinañ dinañ reprendre bu baax suñ liggéey dina mën a dox parce que instant bi ñu ngi jógee sedd bi bagage sedd lañ doon dagg instant bi bagage sedd doxul te tàngul normal te fekk tàngaay bi taxawul carrément doo mën a xam lan ngay dagg bu baax moo tax estant bi moom dañuy waaw dañuy la rek ba tàngaay bi gën a dugg quoi nguur gi waaw nguur gi moom li ma leen di wax rek mooy ñi bàyyi xel bu baax ndaw Sénégal parce que am nañ ndaw yoo xam ne yombuñu ndaw yu nangoo liggéey parce que man wax dëgg yàlla xale laa mais li ma génn bëri na mais ndaw yu mel ni Sénégal nangoo liggéey am jom bëriwul ci country yi nekk fii nii waaw parce que dox naa dugg naa ci yu bëri mais ndaw yu mel ni Sénégal nangoo liggéey am jom di xëy di wàcc di door waar état bu ko am rek war nga leen jàppale te yàlla tax mais gëstuñu seen ndaw parce que dañuy fekk souvent ñu nekk si territoire bi dañ leen di xeeb di leen tuutal li ci gën a bëri marché yi nga gis ñi taxaw ci ci ci ci territoire yi lépp dagaase nañ ko te joxuñu leen xëy te nekkul ne nit bu jàngul rek dëkkul ci réew bi warul demee noonu quoi. métti na méttiwul bu fekkee da ngay teel a yeewu 6 heures ñëw Colobane yenn fi ngoon métti na mais boo xoolee li tax nga koy def méttiwul parce que wut loo am loo xam ne dalay lay leew te nga mu ñaqal ko sa bopp am ko méttiwul ndax njaboot gi moo tax méttiwul bu fekkee da nga xalaat ñi ko ñi tax nga koy def. du métti mais coono bi moom métti na parce que fii moom tout le temps ñëw fi di la harceler lu nekk ñu def la ko des nga daje client yoo xam ne dañuy kéemaane wax ak ñoom ñu commencé di la dépasser mais loolu lépp yow yaa xam ne maanaam yow yaay liggéey kuy liggéey nag moom da ngay moytu ak coow surtout suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne dañoo xaw a changé des fois ñu dépassé la sax ba saaga la mais yaay muñ rek te xam ne maanaam liggéey bi moo ko laaj rek jaay leen yow génn ci. fii jafe-jafe yi daanaka daanaka bëriwul de daanaka daanaka jafe-jafe yi bëriwul de léegi nag des fois am na ay période yoo xam ne moom pour nga am daal moom problème la conteneur day yéex a ñëw des fois bu conteneur bu ñëwee pour nga dem jël sa daal pour ñun ñu am daal sax suy borom ñii di ñii di ëndaat daal problème la ci ñun mooy daanaka lool rek moo fi jafe-jafe bu bëri bëri moo fi jafe-jafe ak mairie. mairie bi <laughs> moom fàtt nañ trop trop. mairie bi fàtt gi ci lan la. pat wi si domaine euh, domaine euh, nu ñu koy waxtee sax des fois day ñëw réglementé na li ngeen a fay par mois mbaa comme suñu mbaar yi nga gis nii li ngeen a fay par mois mais mois bi bu boo li ngay na ñoo nekk si bi day ñëwaat si suuf loolu ma daanaka loolu jafe-jafe loolu tam la bokk non bu baax a baax xam nga miir moom bu demee lii ngeen a par mois li ngay fay par an mu nga waral keneen warul ñëw si suuf ñëw di encaisser gars yi wala di ëndal jafe-jafe yenn yenn yenn yenn yenn yenn commerçant yi da bëri na am na ñoo xam ne dañuy ñëw fii rien que pour ëndal jafe-jafe di dégage say bagage problème fan yii rek amoon na ko ñu nag benn jaam yi di kaj ji du nekk mu dugg ci te da leer ni ku jëriñ ko boo ko laaloon fii yow ay créé sa bopp problème ci ci affaire lan ay bagage war ñoo teg te ñu nag miir yi dañoo waxtaan ba jubóo ci lu ñuy fay par an keneen bu ñu xasee ba fay miir keneen waruloo ñëw tam di ñu tegaat yeneen jafe-jafe naan lii da ngeen ko war a fay wala lii waroo leen tegal fii war a tegal fee loolu moom loolu lay loolu lay première chose mooy mu jàppale jeunes boo xoolee mbaar bi ne la monsieur Fatick ñu fi fii di jëw jënd ci ñu après engrais di demoon ka jaat vente daanaka loolu mooy jafe-jafe fii marché moom jafe-jafe ñu gis mooy nguur gi li muy jàppale mu war a jàppale mooy jàppale jeunes yi ndax fii boo xoolee marché bi yëpp ay jeunes ñoo fi nekk gis plus de cinquante ans moins de quarante gis doo fi gis gis ay jeunes gis mbaar bi boo xoolee yëpp moom sàcc yi moom moom ku nekk li la am ñoo xëy dóor waar ñibbi rek la ñuy def am na ñoo xam ne tout le temps rek la ñuy def eh, fii moom chaque jour nga gis des fois sax clients yi dañuy taxaw di tànn benn waay ñëw seen ginnaaw di ubbi seen saak di jël seen téléphone wala seen kal toujours ñu jàpp fi sàcc moom sàcc moom bëri nañ fi lool waaw police yi ñoom des fois xam nga rek xam nga ñëpp moom des fois ñuy xuloo yow mais yow yaay dawal compréhension rek buñ lay jaay maanaam ñàkk teggin tamit yow yaay ak ñoom rek parce que bu fekkee fi ngay lal moom ñoom mairie bi fi bàyyi da fi bàyyi ndax maanaam compréhension rek yow da ngay dawal yenn kii ñu bëri da nga koy mën muñ police moom li ñu amoon ñoom problème du bëri xanaa des fois buñ bëggee yëkkati nit ñi te yëkkati boo xam ne duñ leen wax lu leer comme jamonoy corona bi deux fois yëkkati nañ ñu fii te ñun xam nga ñun ci asalem lañ bokk. léegi bi ñuy tëjee marché Colobane bi ñu yëkkati waale ñu léegi biñ biñ ñu ñu yëkkatee une semaine après ko mar asalem ñu tëj leen ñu ñu après ñu yëkkati waale ñu ñu ne muy une semaine ñu am deux semaines yoo xam ne liggéeyuñ xam nga loolu yomb yombul. métti na trop ci koo xamante ni ne ngaa war a dund war a dundal sa njaboot boo toogee deux semaine yoo xam ne liggéeyoo te ki la koy def ñàkk xam foo bokk moo tax mu def ko parce que policiers yi bi ñu ñëwaatee di lal suur boobu bi mu ñëwee bëgg ñoo aaye damaa dem wax ak moom ne ko ñun bokk ñu Colobane asalem mairie asalem ci la ñu bokk foofu la ñuy dagg tige ci la li ñuy def ci ñoom la ñuy kii ci la doog comprendre ne ñun bokk ñu Colobane après nag ci la ñu bàyyi keroog man maag booy bi ñoo njëkk a gars yi foo boobu kolobaan lalagun ñun bi ñu ñëwee di laal maa booy bii nii mi bi ñu ñëwee di laal gars yi naan police yi waa kolobaan laluñ police yi dañ leen yëkkati man dañoo laal ba pare police bi ñëw bëgg ñoo yëkkati ma dem wax ak moom ci la comprendre doog ñoo bàyyi ñu laal gars yi doog a lalaat moom ñu ñëpp a gisoon doon métti rek waaw liggéey bi moom nu doon mel melatu ko da ngay xëy loo soqeeku loo lekk sax da lay xaw a të waaw parce que liggéey bi moom jamono ñu toll moom ku da lay nax rek après Covid bi ñu nekk nii amul dara loo xam ne nii moom dox na moom wax dëgg yàlla moom waaw boo bëggee dégg-dëgg amul dara loo xam ne nii dox na fi mais nag xam nga rek dañuy góorgóorlu nii rek après lépp ñu bàyyi ko ci loxo yàlla suñu borom xam ne moom lépp moom la daal waaw waaye moom amul dara lu fi neex moom dëgg yàlla waaw waaye ñun moom ñun moom ñun ñu ne ci taabale yi di góorgóorlu moom ñun suñu suñ ku ñu mën a leen na loo dong la mooy ñu bàyyi ñu ñu joob nii xam nga après itam covid bi nu mu demee ni ñu wàññi affaire yi ci teg lépp xam nga ñun ñu man a nekk si jaamu mais ñun moom amul dara loo xam ne nii war nañu dem si état na ko jox ñu lii wala jox ñu laa mais moom fu ñu bàyyi suñu place yi ñu liggéey nekk si jàmm rek ñun moom sawa waaw waa nag dara neexul fi ah dara neexul fi ah waaw dara neexul fi wax loolu moom li muy am du bëri parce que en général bu fekkee da ngay jënd bal da ngay jënd bal yoo xam ne baax na de mën naa seer nag mais dina baax mais li ngay dagg bal en général mu mu bon duy bëri li ngay dagg bal mu bon duy bëri mais des fois mu dal la nag waaye li muy li muy am duy bëri. tey boo doon wax sa message bu mujj lan lay doon ci ñi nga xamante ni ñoo ñànk réew mi. ah ñu ñànk réew mi moom liñ leen wax yaakaaru yaakaaruma ne dinañ ko dégg daanaka ñoom jox leen message du yomb parce que ñoo xamante ni depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci réew mi te gisuñu lu concret loo xam ne def nañ ko fi pour Sénégal wala pour sénégalais yi ñooñu boo leen bëggee jox message wala ñu ne dégg nañ message bi leen nit ñi di wax ñooñu ku leen gëm danga leen nax rek. waaw parce que yaakaar ñoom solution problème Sénégal yi moom jëm wut si solution moom taxu leen fee toog waaw ndax depuis 2012 ba léegi ne Macky Sall li mu waxoon ci bi yëpp daanaka def ci dara ay 100000 emplois ak 500000 emplois ak 1 million emplois yëpp defu ci dara en général marché yu bëri tëj nañ leen boo demee Sandaga am na cantine yu bëri ñu ngi ko toj te lañ fa nar def nekkul dañ ko bëgg a tabaxaat jox ko yi de parking lañ fa bëgg a def moo indi woon problème bi ñu bëggee yëkkati commerçant yi ñu bañoon a jug xam nga loolu nit ñi ñu bëri xamuñ lu tax commerçant yi bañ a jug mais commerçant yi seen bopp xam nañ projet bu fa état bi bëgg a def moo taxoon bi mu leen bëgg a yëkkati mu bañ te ba mu leen yëkkatee ba léegi centre commercial ba toju ko de ba léegi mu ngi fa bàyyi centre commerciale ba mu taxaw xam nga ku no deux mille le 3 août la woon le 3 août vingt ba tey tojaguñ kii ba te mu noon da koo bëgg a tabaxaat pour commerçant yi xam nga kooku boo boo fekkee gis nga lool mu wax la maintes fois yoo xam ne lim lay wax dara amu ci du ci def dara ba la waxaatee nga koy gëm tamit da nga nax sa bopp muy wax cent milliards yu muy jox Sénégal yi pour financement ba yomal xëyam du am li muy wax naru ko bëggu koo def Sénégal moo ko ñorut kuy xaar ci moom moom da ngay sonn yow nga dem wutal sa bopp pexe rek waaye du ci guur Sénégal gi ay tabax foofu kaay rek ko ñor waaye tabax fu ñuy jàngee wala fu ñuy fajoo wala yoon bi nit ñi jaar moom ñoru ko te du ko def waaw waaye 2024 soreetul incha allahu taala suñu rendez-vous moom moom léegi mu commencé ndax xam naa 2021 euh, élection locale yi ci lañ koy commencé wan ko pare nañoo ak yow liñ la mënoon a may mayoon nañ may nañ la ko waaye yow neexoo dimbale.